Alors, quel, a été c'est la police qui a reçu des instructions. Donc, euh, il des officiers de police, des agents de police qui nous ont dit qu'ils qu'ils ont reçu des instructions pour ne pas nous laisser accéder à la caisse des dépôts et consignations. Et ces instructions-là, visiblement, sont personnalisées. Puisque vous voyez que la caisse de dépôt et consignation, est ouverte. On est un jour ouvrable, à, une, à un horaire d'ouverture. Donc, euh, Donc, euh, nous constatons que c'est des instructions personnalisées. Donc, ceux qui leur ont donné ces instructions-là, en tout cas, ne se sont pas conformés à la légalité. Puisqu'on est en période électorale. En période électorale, nous avons une décision de justice qu'on veut signifier à la caisse de dépôt et Parce que vous avez tous entendu le prétexte qu'ils ont utilisé la dernière fois, le directeur de communication, en disant que M. Ousmane Sonko, n'étant pas lui permettre de déposer une caution. Alors qu'on avait déjà déposé une caution. on est venu même, nous avait servi le café d'ailleurs. Et nous avait souhaité bonne chance. Et après notre départ, en nous disant, oui, euh, on, a, on, leur a retourné le chèque parce qu'il n'est pas sur les listes électorales. a une décision dans les listes électorales et dans le fichier électoral, ils ne veulent plus nous recevoir et ils demandent à la police de nous opposer, en tout cas Euh, l'entrée, de barrer l'entrée. Donc c'est ça la situation, comme vous allez le constater. Maintenant, euh, notre huissier va constater tout cela et nous allons en tout cas continuer les procédures parce que nous, nous ne demandons que l'exécution des décisions de justice. Et c'est le président de la République lui-même qui avait dit lors de son discours du 3 juillet, si je me rappelle, qu'il allait mettre tous les moyens, toutes ses forces pour faire appliquer les décisions de justice. Nous lui demandons de faire de justice du tribunal d'instance hors classe de euh, qui demande l'annulation, euh, qui ordonne l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko, qui ordonne la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Voilà donc euh, en résumé euh, l'objet de notre visite. Et nous sommes face à des administrations où les directeurs généraux, euh, en tout cas, qui sont euh, payés par l'argent du contribuable, se barricadent, jouent au cache-cache, se cachent sous leur bureau et refusent de recevoir les citoyens que nous sommes. Et nous ne comprenons pas cette attitude de peur, cette attitude de panique, cette attitude de crispation de la part de gens que peut-être ils ont des arguments. Donc ils, ils, doivent être capables de nous recevoir et de nous dire en face, face à face, voici nos arguments. Donc je ne comprends pas euh, l'utilisation de la police euh, pour empêcher à des citoyens d'accéder à des services publics. Ça quand même c'est assez grave. Et j'ai entendu hier le commissaire général Tiendel Fall se justifier, mais on ne lui demande pas, euh, ça euh, ce n'est pas personnel. Il représente une administration et on voulait lui servir une notification à cette administration. Il se trouve qu'il est le directeur général. Il a l'obligation de recevoir les courriers qui lui sont adressés. Mais quand vous empêchez à des citoyens de vous servir des courriers, alors qu'on est en période électorale, en tout cas, et je dirais même de conspiration pour empêcher à un citoyen qui est sur les listes électorales, à un citoyen qui a le droit de candidater, parce que c'est une décision de justice, en tout cas, euh, dont il y a eu une injonction de la Commission électorale nationale autonome. Donc nous pensons que nous avons tous les actes, en tout cas tous les moyens de légalité à notre disposition pour pouvoir disposer de ces documents-là. puisqu'ils n'ont plus d'arguments, puisqu'ils n'ont plus de prétexte, puisqu'ils n'ont plus d'alibi, ce qu'il leur reste, c'est de nous opposer à la force. Et euh, face à cette force-là, nous n'abdiquons pas, nous ne cédons pas, nous allons continuer tranquillement la procédure, pacifiquement, en tout cas sans créer de, euh, de scandale ou sans outre mesure. Nous gardons notre sérénité et nous allons continuer, euh, en tout cas, euh, nos procédures pour le dépôt de la candidature de Ousmane Sonko. Et tout, tout le monde entier va constater que Ousmane Sonko, en tout cas, a pris toutes les dispositions pour constituer son dossier de candidature. Donc voilà maître Siré euh, Crédorli qui est là. Voilà, donc euh, voilà maa ngi leen di nuyu euh, di leen gërëm di leen sant tey ñoo ngi fii ci kanamu caisse de dépôt et consignation man en tant que mandataire euh, du candidat Ousmane Sonko ma ànd sekk euh, euh, maître Ciré Clédor Ly di sama avocat ànd ak également l'huissier maître Guillaume Sagna pour ñëw lenn rek moo ñu fi indi mooy indil caisse de dépôt et consignation këyit bu ñuy naan notification signification yëgal ko ni tribunal d'instance hors classe de Dakar jël na ndogal ne Euh, Ousmane Sonko lu ñu ko dindi woon ci liste bi teguñu ko ci yoon te joxe na ndigal ne nañu delloo Ousmane Sonko ci liste électorale yi donc yéen a ngi fàttaliku jotoon naa fee ñëw ba déposer sama caution 30 million indaale chèque indaale document yëpp ñu jox ma quittance bu ñu may jox quittance ñu dalal ma vraiment waxtaan ak man may ma kase ma naan ma génn fii laa sama point de presse buntu caisse de dépôt et consignation waa caisse de dépôt et consignation souhaité ma bonne chance euh, bu ma demee nag dégg naa ay wax sama ginnaaw ñu ne euh, ay Daffé delloo nañ ko chèque bi parce que amul woon droit déposer caution bu may wax ak euh, moment bu may wax ak yéen ba léegi nii mosumaa gis chèque donc loolu ñu wax du dëgg leneen tey nag ñëw nañ fi pour informer leen ci décision bi pour que ñu jox ñu suñu attestation parce que dañu amee attestation boo xam ne mooy attestation de paiement jotoon nañ fi yónnee huissier ba huissier bi defal nañ leen sommation parce que directeur général bi nga xam ne mooy Cheikh Issa Sall dafa daw di dawloo huissier bi pendant quatre jours huissier bi mënu ko gis huissier bi nag constaté ni directeur général bi bañ na kaa recevoir bañ naa recevoir sommation boobu donc këyit boobu ñoo ngi ko yor ak ñun léegi nag tey dañu ñëwoon. yëgal leen ni Ousmane Sonko delloo nañ ko ci liste électorale te te normalement comme ñoom lay bu ñu amoon mooy Ousmane Sonko nekkul ci liste électorale moo tax warul déposer caution tey nag delloo nañ ko ci liste électorale am nañu décision de justice boo xam ne tribunal d'instance hors classe de Dakar moo ko jël l'honorable juge Racine Thion moo ko jël donc muy décision exécutoire et définitive donc ñoom nag lu leen dese moo ñu jox ñu suñu attestation tey nag loolu moo ñu fi indi woon mais gis nañ ni euh, ah comme amatuñu lay comme am na amatuñu alibi amatuñu prétexte maanaam lu ñu doon euh, jéem a indi comme alibi jeex na lu leen dese mooy euh, sant police police ñëw bloqué ñu sa entrée ne tey duñu dugg donc loolu nañu constaté man en tant que député honorable député nekk membre euh, conférence des présidents assemblée nationale nekk président de commission à l' assemblée nationale donc huissier bi nga xam ne day def liggéeyam kenn warum kaa tere mu dugg ci service public tey ñoo ngi si kanam benn service public boo xam ne moom dama ne tey service public bi mandataire Ousmane Sonko ko wu huissier bi kenn du fi dugg donc ñoom maanaam amatuñu lay amatuñu prétexte donc lu ñu doon def tappale caaxaan yooyu ñoo doon def tey feej na leer na nañ ñun nag dañuy continuer suñu liggéey euh, si jàmm ak salaam lu ñu war a def yëpp nañ ko def xam naa ni conseil constitutionnel nañ ko yëgal loolu yëpp ne lii xew na fi àddina bi yëpp na ko Sénégal yëpp yëg nañ ko gis nañu ñuy doxalee comme ni mu ko woowee banditisme administratif rek nañ ko mën a tuddee mënuñ ko tuddee leneen voilà donc loolu daal moo ñu fi woon yaakaar naa ni mun naa bàyyi peut-être maître mu ci yokk donc mu yokk ko ci ñoo leen di gërëm di leen sant jaa ngeen di bon moi je vais être très bref je prends simplement à témoin la communauté nationale et internationale il est clair que nous dans un état soldatesque dans l'arbitraire et nous n'avons plus de service public. Parce que lorsqu'on interdit à un avocat d'accéder à un service public, entravant jusqu'à à un à un service public, lorsqu'on empêche à un huissier d'accéder à un service public, je crois que tout est permis. Donc, tout le monde sait que nous sommes venus pour retirer l'attestation. On ne permet même pas Partout, c'est la police que nous rencontrons. Donc aujourd'hui, il n'y a d'État. Il n'y que la répression, il n'y que la brutalité. Je m'en tiens à cela. Nous, nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous faisons. Et dans ce pays, comme je l'ai dit, il existe encore des hommes et des femmes qui feront leur devoir. Nous avons assisté à cela. Et j'espère que ce courage persistera. Cette loyauté envers le peuple envers la justice, nous continuerons à les rencontrer. Et le rempart, l'équilibre, tout cela repose sur une seule tête, une seule figure, c'est la justice. C'est à la justice de remettre l'ordre, c'est Conseil constitutionnel de mettre de l'ordre. C'est le gage et la sécurité de tout le monde, c'est le gage de la paix. C'est la seule chance que nous avons aujourd'hui nous retournions dans l'ancrage de la démocratie et de la République. Nous reviendrons, je reviendrai, et nous repartirons. Tout ce qui aujourd'hui constitue des entraves en l'exercice des droits et des libertés seront démasqués. je vous ci wolof ci wolof li may wax moom moo di jël nañu chefu Ousmane Sonko war nañ ko jox kayit kayit bañ ko war a jox joxuñu ko dëkk bi nag fi ñu toll moom moo di foo dem dootoo mënoo mënatoo dugg ci service avocat mënul dugg ci service huissier mënul dugg ci service député mënul dugg ci service kon état amatul li fi am moom moo di réewu alkaati réewu alkaati fi am léegi nag ñoom ñoo xam luñ ci jub ñun xam nañu fu ñu jëm te lépp dafa leer suñu bopp justice moom moom mën a teg réew mi ci raay conseil constitutionnel tey ji démocratie Sénégal ci boppam diggu boppam la toog état de droit bi diggu boppam la toog dëkk bi nag dégg nga am nañu yaakaar ne que yi fi nekk xam nañu ne que seen avenir ñun ñëpp jeexal nañu suñu avenir yu sët yi la suñu avenir yu doom yi la dañ ko war a teg ci raay bi léegi nag tere nañu joxuñu ñu suñu kayit tere nañu ñu agsi dugg ci biir service loolu kenn mësu koo gis ci réew fi mu ne ndetteeral ci li réew mi nekk police fi mu ne doo gis lu dul alkaati mënatoo gis service ñoom ñooy taxaw ci bunt bi ñoom ñoo jot ordre ku ci nekk nag da gàddu sa responsabilité ndax ci kaw yoon dañu nekk maanaam su fekkee jox nañ la ordre boo xam ne que jaarul yoon mu wóor la nekk awul yoon su fekkee nekk exécuté nga ko yow ak kale jox ordre bi yëpp seen responsabilité yoon day dal sax loolu nag ñoom nañ ko xam jaajëf መስከረም ድረስ የሚከባል ዩለስ ይቅንዲ ቤተሰቦች